alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa mbokk yi di ànd ak ñun ci Mouslih TV seen émission bi di teggin ñu ngi fas yéene àndaat ak yéen ci mercredi bu jot ak 15 heures bi ñu fiy mujj ñu ngi doon waxtaan ak Oustaz Arfan Diouf di waxtaan ci wàllu jàmm waaye tey dafa am message boo xam ne moom lañu ñu bëgg a au président Macky Sall et son gouvernement. Parce que le 7 avril, euh, génne nañu seen list ministres yi yow monsieur le président dinañ la wax responsabilité yi nga yor mooy lan ak ñi nga xam ne xam nañu responsabilité yooyu biñ ko yoree nan lañ doon doxalee dinañ wax ak ministre yi itam lii ñu leen jox ñiñ ko joxoon démb nuñ ko doxalee woon ñi ko doxalee ni mu waroon nan lañu mujj ak ñi ko dex ni mu wareewul woon nan lañu mujj monsieur le président Sénégal xam nga 14 millions d'habitants bu la neexee sax nga ne 15 millions d'habitants ñooñu ñëpp yaa yor seen responsabilité président Macky 14 millions de sénégalais yi fi nekk yow yaa yor seen responsabilité bi ñu la falee le 24 février 2019 ba 2024 ba nga nar a joxe réew mi. monsieur le président xamal ne liir bu juddu woon vingt 24 février ba ba muy ab cinq ans dinañ la laaj liir boobu lan moo la waroon ci moom ndax def nga ko walla defloo ko monsieur le président loolu yombul de monsieur le président dinañ la laaj aussi lii du éducation bi nan nga ko doxalee. éducation bi ci yan loxo nga ko teg est-ce que loxo yaa ma neex la walla loxo compétence la loolu dina leer bu doxalee lii di santé bi monsieur le président dinañ la laaj yan loxo nga ko teg loxo sa partisan la walla loxo partisan wu réew mi quand di réew mi mooy Sénégal dina la laaj lii di élevage bi dina la laaj li jëm ci wàllu pêche dina la laaj ci wàllu industrie dina la laaj ci wàllu lépp loo xamante ni bi ay poste de responsabilité te yàlla teg ko ci sa loxo dinañ la ko laaj son excellence monsieur Macky Sall ma xamal la ne ni nga ni defee conseil de ministres xamal ne chaque jeudi dina benn conseil des ministres boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy gaaral li nga def ñu ne ko kat président lii la def ajjuma ba alxamis lii la def ci njàng mi lii la def ci éducation lii la def ci social lii la def ci santé lii la def lii la def ci économie dinañ ko ko gaaral monsieur le président est-ce que di nga bàyyi xel bu fekkee ne am na ay manque manque lan la yonent bi di yëg ci xeetam bi nga xam ne yaa leen jiite monsieur le président da nga xam ni ni nga amee OFNAC noonu nga amee IGE noonu nga amee noonu nga amee organ de contrôle yooyu yépp xamal ne yàlla am na organ de contrôle yoo xam ne maa yanfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid boo waxee uf monsieur le président munkir ak nakir bind nañ ko bind nañ ko mu nekk ay rapport reporter yoo xam ne duñu ñu changer virgule ci li nga wax ci li nga jëf lépp sa déplacement sax dañ koy bind itinéraire bi monsieur le président jóge na jam ñaajo waat na ñëw na présidence invité na président yi nga xam ne ñoo nekk Afrique de l'Ouest ak ñeneen ñoo xamante ne bii Rwanda et j'en passe ñooñu ñëpp teewoon nañ fa nii la leen teeroo nii la leen terale lii ak lii la leen jox ci yóbbal monsieur le président loolu dañ la koy laaj yaa ngi xalaat ne dama bëgg màndaa bi may jeexal mu doon mandat boo xam ne. ñëpp dinañ xam ne jox naa cër jigéen jox naa cër ndaw te dina liggéey loo xamante ni bii sama tur dootul fay est que monsieur le président xam nga liggéey boo xam ne sa tur dootul fay mooy nga jiital yàlla sa lépp ana Cheikh Ahmadou Bamba ñaata at mi ngi ci suuf ana Cheikh Ibrahima ñas ana Nelson Mandela ana ana ana ñooñee ñëpp jëf ji ñu jëf soxla woon ay at yu bari deux mandats de dix deux mandats de cinq deux mandats de sept soxla ko woon donte donte benn mandat de cinq nga am mun nga ci liggéey loo xamante ne bii sa tur dootul fay ah monsieur le président am na loo def ci sept ans yi loolu dañ koy reconnaître mais doyul yow sa jëmmi bopp xam nga ne am na lu des ndax bu fekkee dégg nañu Boun Abdallah Dionne li mu wax ne kat da nga bëgg liggéey bi gën a nose nga jël dossier yépp en main bëgg ba région bu nekk am koo xam ne moo leen di waxal kon xam nga ne am na lu manqué su manqué wul woon da nga leen di reconduiraat kon am na ay impair impair yooyu duut ci baaraam monsieur le président monsieur le président da nga waat ne devant Dieu je jure devant Dieu et la nation sénégalaise de respecter scrupuleusement lan ngay respecter mooy constitution sénégalaise bi monsieur le président est-ce que fàtte nga constitution bi nga xam ne yàlla nee na alastu bi rabbikum nga ne ko balaa bi mu la waxee ne man du man may sa buur ndax su ma la wàccee di nga ma jaamu est-ce que constitution boobu bàyyi nga ko xel wax ma bàyyee ko xel de mais dama ne ndax bàyyi nga ko xel parce que koo mën a doon nit nga dangay juum yàlla rek moo mët te ñun sa réussite mooy suñu réussite ndax fi ak cinq ans mënuñu muus ak moccet ba doo doon suñu président décision yépp yaa koy jël yaay fal yaay folli loo bëgg moo fi am loo bëggul du fi am ndax sañ-sañ bi la yàlla jox mooy dafa jël dogit ci nguuram mu jox la ko nga am sañ-sañu di def am sañ-sañu di tere monsieur le président population sénégalaise bi nga xam ne plus de 60 pour cent de population là amuñu 30 ban programme nga déroulé pour ñoom xoolal drogue bi interpellé woon naa la ci wàllu yàmbaa bi xoolal léegi sum-sum bi nee nañu cent franc sax nga am ñol la ba ñu koy jaay sax di kaas naan ay xale yu ndaw ñooy ñëw di jënd ñol la woowu nañu yokk njëg li monsieur le président insécurité bi am ci Sénégal léegi musu fi woon am doo toog benn jour wala une semaine yoo xam ne doo dégg ne enlevé nañu ay xale enlevé nañu ay mag enlevé nañu ay jeex sax yoo xam ne ñi ngi seen biir néegu sëy ñu leen di sàcc fan la ñuy jëm ñooñu monsieur le président aka neexoon nga génn guddi dox ci trottoiru dakaar yi du ma tudd yenn siti yi da ngay yaakaar ni sax yow Miami nga nekk wala Beverly Hills ay jigéen ñoo xam ne ay doomu jullit lañu li ci ëpp yëre yi ñuy sol xajul ci euh, feesul muusu ñetti dërëm yére jigéen nga dugal ko ci muusu ñetti dërëm monsieur président loolu mi ngi xew sa réew xanaa renseignements généraux yi xamuñu ko xale yu ndaw 12 ans 13 ans 14 ans nga gis leen su ñu waree jàngi ñu jox leen li ñu war a añee li ñu war a jëndee goûter ay xale yu ndaw mais foo leen di gis ñi ngi dem ci carte xaalis bi carte xaalis carte xaalis xale boo xam ne amagul 18 ans bu ñu demee fi ñu koy jaayee ki leen koy jaayee day nangu xaalisam la yi yitteel su ko jëlee dem jox njabootam moom it mi ngi jox njabootam poison monsieur le président am na lu am de autoroute Ila Touba bi gis nañ ko de coupure courant yi gis nañ ne wax dëgg yàlla léeb ak lippoon la woon bourse familiale gis nañ ko carte d'égalité des chance gis nañ ko mais waa daara ji ba léegi gisaguñ seen bopp monsieur le président daara ji nga xam ne population sénégalaise xale yi toll ci jàng cinq pour cent yi waa daara ñoo la ko jëlal monsieur le président cinq pour cent ndaw yi yow nga ci jël tas leen ci école yi yi privé yi jël leen yi public bi jël leen nga leen di fayal ay professeur bi ñu nekkee xale ay maître ay madam ay euh, professeur ba utal leen ay professeur agréé ñoom kan mooy génnee xaalis naan day fay professeur wala day fay maître amul yow gouvernement yow yaa yor loolu monsieur le président ñi jël cinq pour cent yow lan nga leen defal programme bi ñuy wax modernisation des daara li ko jiitu mooy nga réajuster nga réajuster ni ngay dépenser xaalis bi jëm ci wàllu éducation parce que ratio bi jëm ci daara dafa tuuti sëñ daara mooy fay luyaas daara moderne yu bëri ñooy fay luyaas ñooy fay ndox ñooy fay courant ñooy fay jànq yi di fóotal xale yi ñooy fay ñi di togg ñoom ñooy fay ustaas yi jàngale ñoom ñooy fay professeur yi jàngale rawatina bu ñu dugalee jàngale anglais bi français anglais arab ba pare ngeen imposer leen ñu jël programme bi nga xam ne moom la éducation nationale di def ci yeneen écoles yi ngeen imposer leen ko te joxul leen moyen d'accompagnement monsieur le président sama lettre bi dama ko tàmbali rek parce que dañu am sunu mot mot avec T ak OX muy ñaari mot moo bi mooy kàddu bi beneen bi moo bi mooy maal mooy mettit boo xam ne dañ ko fi gis damay yemen foofu ci yow mais monsieur le président ñi nga fal nii ñi ci bëri seen waa kër yi ñi ngi sabaru nga gis ñoo xam ne dañoo dof ba doppooral nan sa ndeye ko liggéey dañu waroon wax ndeyu Macky Sall ko liggéey ndax Macky Sall moo nekk président bu la fal woon doo falu nga ne ndeyee ma ko liggéey kon ndey liggéey foofu lañ koy xamee xam nga fu ñu xamee ndey liggéey mooy ku ñu jox budget cent milliards na def ko ci wàllu infrastructure nga def cent milliards yépp ci biir infrastructure bi ñu lay fal nga nekk cinquante cinq kilos soixante cinq kilos bi ñu la falee nga commencé di peser soixante kilos soo yoroon karaw gu ñuul ñu gis na nga bijjaaw boo doon nelaw bay àndoor ñu gis ne dootoo nelawati bay xandoor boo doon lekk ba suur fu ñu toll rek naan la xanaa dangaa feebar ndax sa appétit mooy coupé ngir yëg bi nga yëg responsabilité bi ñu la tegal kooku la ndeyam liggéey waaye di peser douze kilos ñu fal la ministre six mois nga posé nga pesé soixante-dix kilos kilos yooyu fan la jóge est-ce que du àqu gor ñi nga téye di lekk est-ce que du àqu gor yi nga téye di lekk fal gi ñu la fal ministre du teraanga waaye nattu la nattu la imagine leen bu ñu la defee ministre du commerce Sénégal ni commerce mel nga xam ne la majorité des jeunes ay marchands ambulants lañu ay bacheliers ñu am seen doctorat ñi nga xam ne def nañ seen thèse ñoo xam ne entreprise yi ñu yoroon teg nañ ko ñoo ñooy walbatiku jël benn 5000 jënd ay mouchoir ay broloque jënd ay porte-clés jënd ay bic di jaay ci mbedd mi ñooñu gis ni ni ñu encombré tali bi. Pompidou bi dindi ngeen leen fa delluwaat nañ fa avenue Lamine Gueye génne woon ngeen leen fa ña fa soo demee salle ventre ñëwal fii ci avenue Blaise Diagne bi le sous-préfet daaw bi mu fa demee di génne mu ne ko monsieur le préfet mu ne ma naam ma ne ko li yàq xaalis la policiers yi bëgguma dóor may wax ak maire commune Dakar Plateau mu sànni ma loxoom ma ne ko lii tàpp à l'œil la rek li ngeen def du sori parce que li mu laaj pour poursuivi du ngeen ko def développé xaalis bu bëri maire bi ñëw préfet bi ñëw police ñëw coow li bëri jël oto yi parquet bu doon cinquante oto ngeen génnee woon foofu yóbbu fourrière léegi soixante-dix oto moo fa nekk avenue Blaise Diagne amatul trottoir amatul trottoir pour lan piétons yi ñoo ko oto yi ñooy xëccoo fi ñuy dox loolu mooy dëkk bu jëm ci émergence non non munta émerger tant que carotte amul ak caravage ki def lu baax respecter code de la route respecter code de l'environnement ñu jox la carotte neexal la képp koo ko respecté wul nag ñu jël caravage capp-cappal la loolu mooy doxal réew monsieur le président benn xeet gënul benn xeet fii Sénégal kenn gënu fi kenn du joolaa du njaago du pëlëfuuta du wolof du lébu du séeréer du bambara du joolaa du soose kenn gënul kenn nous sommes tous égo ku juddu da ngaa tëdd monsieur le président ku juddu da nga tëdd amul kenn ku juddu jóg taxaw wala nga judd jóg di jubilé ñu ne la la nga ne man maa gën ñeneen ñi amut ku judd da tëdd kon loi bu ñu ko tegee na ci ñëpp yem na ci ñëpp yem ki ànd ak yow ak ki ànd ak yow dañ ci war a yem nous sommes tous égaux devant la loi vous le chaque jour ngeen ñu koy pour pourtant am na déguerpissement bi foo xam ne bi ngeen fa demee da ngeen ko tëb laalu leen ko parce que yéen a ngi ragal lan ngeen di ragal yàlla mi ne dangay falu yàlla moomu tànk waxul ne di nga folleeku monsieur le président doo folleeku mukk ak àdduna bi yëpp bu ñu dajaloo woon ne dañ lay folli duñ la mën a folli ndax yàlla dogalagul nga war a wàcc kon monsieur le président ñun dañ lay laayee biir tuuti nañu nag waaye am nañu xel nous sompa sommes des des ignorants dañuy def jàngat comme nit ñeneen yi ko defee géopolitique dañ koy jàng di xool évolution société bi di xool ci wàllu sociologie sénégalais yi ba koo ci gis léegi boo ne ko ça va mu ne la ah amul kenn kuy sant yàlla léegi ndax lan souffrance bi nga xam ne dafa bëri ñi am sañatuñu wane seen alal ndax lan of nag ak créé la ñuy ragal ñi ngi denc seen alal ji kenn investiratul soo génnee 5000 pour ut monnaie di nga wër 30 minutes doo ko am bu dul le premier wala le 10 côté boobu moom mun nga am wecc monsieur le président bu ñëwee ba sa réew ñuy reyante ndax juróomi dërëm waa ji yor cinquante war a dem Grand Dakar ñëwaat ne waa ji fukk ak juróom waa ju ne ko waaw mu jox ko 100 bi waa ji nar a jël 100 bi te ki nga xam ne mooy usager bi cinq bi moom lay booleeg fukki dërëm yi ngir buy ñibbisi mu ne ko di ma delloo ñuy xeex xam nga ne loolu ñàkk moo waral loolu kon du juróomi dërëm de mais ñàkk la. ñi ngi ñaan yàlla mu defal ñu jàmm di ñaan yàlla Sénégal gën ci réew yi ñun Sénégal lañu am Sénégal lañu bëgg képp ku bëgg Sénégal bëgg nañ la képp ku bañ Sénégal nag dañ lay dañuy màndu say mbir duñ la boole ci sunu programme di wax ne sunu deuxième partie su boobaa dinañ ñëw wax ak ministre yi nga xam ne fal nañu leen ñu xam ne gënuñu ñu ñu xam ne lii du teraanga ñu xam ne lii nattu la bu leen yàlla teg ñu xam ne jalon buñ ci teg ëllëg dinañ leen ko laaj balaa ñuy jéggi siraat su boobaa dinañ xam ne politique yamul fii ci àdduna bi politique yamul ci àdduna bi ndax kenn ku nekk il sera comptabilisé le jour du jugement dernier selon les actes qu'il avait posés dans ce bas monde ndax man duma nekk benn benn benn benn journaliste ñu may àtte en tant que juge non noon non ci li ma doon liggéey li ma doon exercer si loolu lañ may évaluer ëllëg ndax am naa moyenne wala awma moyenne yéen politiciens yi nag ci seeni jëf lañ leen di évaluer ragal leen yàlla ci loolu di ñaan yàlla mu jéggal ñu jéggal leen di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ñun di partager vidéo yi en même temps di abonné wu yàlla moo leen di fay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu